Euh, li ñuy def d'abord mooy euh, souhaiter à tout le monde mm, une bonne fête d'indépendance te euh, ñaan yàlla itam ginnaaw moom mooy doon première sortie officielle pour mu di am lu mu jiite au nom du peuple sénégalais souhaiter ko bonne chance et réussite te itam à tout moment que mu mën rek di eh, am en mémoire li nga xam ne moom la sénégalais di xaar mhm. parce que loolu rek am solo moo tax par exemple su fekkee ne war na def un discours ngoon incha allah ñu ngi koy xaar ci mu wax nit ñi ne benn dana def un état des lieux wax sénégalais yi fan la fekk réew mi parce que loolu itam lu am solo la ci 24 heures nga non non dem na jël engagement ne danaa ko def. ok ok. waa faire le faire le l'état des lieux. wax aussi que ne reddition des comptes. mais est-ce que kon du doon euh, redondant ci discours démbam bi pratiquement. non c'est-à-dire discours démbam bi moom c'était un discours d'investiture. je pense que tey. bu fekkee ne war na wax il a pris des engagements il a pris des engagements. bon des, des engagements. bon vis-à-vis de la nation. du peuple mais est-ce que qu'est-ce qu'il dit de de de de la reddition des comptes. Ah, te yooyu mën na ci wax tey non non non c'est-à-dire xam nga sénégalais yi ñoom dañu xam nga discours euh, yi nga xam ne nit ñi dañu amoon habitude un format boo xam ne c'est stéréotypé da ngay da ngay ñëw rek wax wax joo xam ne pratiquement dangay wax 15 minutes. ñu ne waxul dara. loolu jàpp naa ne rupture boobu moom ñoom danañ ko. discours yi xanaa gàttaayu discours bi. lu mu gàtt gàtt. am solo lu mu gàtt gàtt. na am solo sénégalais yi sentir ne kii moom xam na nun lan la ñuy xaar parce que loolu mooy maintenir l'espoir et c'est ça qu'il faut parce que xam nga changement yi peut-être du mën a gaawe noonu. Mm-hmm. mais bu fekkee ne décliner nga euh, euh, euh, une feuille de route très claire mm-hmm. aux yeux de l'opinion dina mën a permettre opinion bi xam ne. kii lii ak lii ak lii vraiment c'était des ententes euh, du peuple sénégalais euh, de fas na yéene. Euh, jublu ci loolu buñ ko defee euh, xam ne tey sénégalais yi dañoo sonn de toutes parts xiif baa ngi fi pauvreté baa ngi fi sous-emploi désespoir de la jeunesse loolu yépp il faut que ci posture bi nga xam ne moom lay am. ak ni nga xamee ne noonu lay waxee ak sénégalais yi. Hmm, démb wax na ko de li tax ñu fal ko xam na ko. baax nee waaw xam na ko boo xam na ko la wax. Hmm. mais est-ce que citoyen bi ko dégg mu ne xam naa li tax ngeen fal ma. maanaam est-ce que xam na li nekk ci boppam moom bu ko waxul non. xam naa li tax ngeen fal ma kooku euh, Macky Sall n'avait pas dit j'ai j'ai compris message <laughs> loolu Macky Sall ko non Macky Sall wax na ne. après mars 2021 waxoon na les jeunes là dégg naa li ngeen wax li ngeen wax xam naa ko danaa ci taxaw mais waxul na lii ak lii ak lii laay def danaa ci taxaw la wax taxawoon na ci selon sa compréhension. d'accord.